njaboot jàmbur. waaw du yoon de affaire yi gars yi ngi daw ngi topp ak kaw sapeur yi gars gendarmerie bi ngi nen askan waa ngi dox si kaw gendarmerie yi askan waa ngi dox si kaw gars yi yéen déggee ko noonu waaw askan waa ngi dox si kaw gars yi gars yi ngi dox gars yi ngi daw da ngay gis nit ñi ni ñu doxee ci kaw askan wi gars ngi dox gab si kër yi ngeen gisee noonu yéen waa na gars waaye tey nag ñoo manifestation ñëw gis nga dëkk mu mel ak affaire waaw nga dëkk bi ni mu mel parce que maa ngi dox daanaka ñu ngi dox man maa ngi daw gis nga mënoo ko taxawal mu bañ gis nga askan wi gaa yaa ngi aneer gaa yaa ngi aneer daanaka maa ngi dox seen kaw gaa yaa ngi aneer gaa yaa ngi aneer gaa ngi door ay bal gaa ngi door ay bal gaa ngi door ay bal ñu tiiree seen kaw gaañ leen kenn ki si bët lañ ko gaañ yeneen yi yóbbu nañ leen police kat bal yaay nii ñun ñëwuñu pour violence ñëwuñu pour dañu dox pour ñaxtu affaire ñun affaire ndox bi tey Kaffrine dafa tollu si daan bi amul ndox te ñun da day lay temps ñu am ndox coronavirus mënuloo ko waxee te amuloo ndox dëgg bal yaay nii dañuy jóg ñu ne dañuy mars le maire ak sous-préfet ñoom ñoo taxaw ne marché bi du am parce que lan am na ñu lu ñuy wax arrangé wu leen ñun nag dëkk bi jeex na bi jeex na